Euh, bulletin médical bi dafa bari lumu mu firndeel lu mu justifié parce que tout dernièrement lu yàggul lool gis nañ les avocats de Ousmane ba ñi ko gën a jege donc ñu ngi doon xamale ni ba si ay soxnaam aussi ñu ngi doon xamale ni wér yaram deme wér gu yaramam demeetul noonu donc ba xel yu bëree bëri am si njàqare donc ñu bëri interpréter ko comme que mani manipulation la bu nekk si biir waa ji dara jotu ko donc kon tey bu bulletin bi génnee firndeel na ni nekkul woon ay manipe mani euh, manipulation mais c'est la réalité donc wérgu yaramam am na foo xam ne ni que toll na fa. donc bi ñu gisee bulletin médical bi démb ak li nga xam ne ni que communiqué bi nga xam procureur génnee na ko man pour man procureur bu bëggee xam mbir mi fu mu fuitee loolu du doon problème ci moom. parce que mën na koo yomb mën na ko yomb trop. parce que mbir mi génnul ñetti nit ñi génnul ministre de la justice. génnul directeur le directeur de l' administration pénitentiaire ak médecin ba nga xamante ni moo xaatim kayit bi kon très facilement pour man su dilisante enquête bi comme ni mu ko waxee ñu def ci volonté bi ci war très rapidement mën nañ mën nañ génnee mën nañ identifier ñi nga xam ni que ñoom ñooy. ñoo fautif ñoo ñoo ñoo ñoo fautif. il faut se rappeler aussi que parce que gis naa les avocats de de Sonko indi benn réplique par rapport à ça. loolu tamit c'est une interrogation bu nga xamante ni dañ ko war a poser. c'est ça parce que Ousmane Sonko aussi bi ñu ko jàppee ba barricade ko ba jàpp ko mais ay données données personnelles am fu ne lañ ko gis. ci internet bi ñu wili pande ko. et ce moment là moment boobu dégguñu la procureur wax ci de. muy muy muy carte d'identité. léppam euh, données personnelles am yëpp. la mu yoroon euh, pistolet. lépp solo te li gën a garaaw yëpp waaw. dañoo ci biir oto bi. ci biir oto bi mu nekkoon bi ñu ko jàppee ci biir oto kii boobu. mais dañ ko photo mel na ku ko bëgg sax humilier ku ko bëgg a toroxal pour bëgg a wan ni seen waa ji ngeen boox ni héros la mi ngi nii tey ñuy toroxal loolu tamit ñan ñoo ko def loolu ñan a ko def c'est moo tax ma ni la xam nga les sénégalais toujours dafa mel ni état bi wala ñi nga xamee ni que dañu téye justice dañ leen di jox firnde ci ñoom ñàkk kóolute gi ñu am ci ci justice parce que le procureur de la république du n'importe qui bari na lu jaar ci réew mi loo xamante ni moom da koo interpellé dugal loxoom parce que moom daf fi nekkal askan wi nekk fi pour que lépp lu nga xame ni que violation la par rapport ak su su suñu ay règlement suñu organisation nu mu demee moom mu jël ci matukaay yi mu yi mu war a jël. xam nga maa ngi dégg même les avocats de Sonko ñu ngi naan du Sonko moo santaane pour que procureur dugal dugal kii def enquête mais ci sañ-sañu procureur la <coughs> bu gisee ne lii. c'est autosaisie bu gisee ne lii. jar na ubbi enquête moom sax amul di yàggal yooyu automatiquement dafay saisir les enquêteurs ñu déclencher une enquête bi nga xam ne dafay concerner mbir mais li ëpp solo ba ëpp solo mooy bari na mbir yu fi jaar yoo xamante ni bu ñu sañoon tam dégg ci le procureur de la république mu am ci taxawaay bi nga xam ne ni que nii am na ci am am na ko ci ci li nga xam ne ni que moo am. en euh, en tout cas daal de toute façon ce qui est sûr et certain mooy man jàpp naa ni il faut que ñun ñu arrêter di jouer avec les parce que lii da dem ba à un moment donné da nga naan sax est-ce que du sketch bu ñuy jouer ci ginnaawu sénégalais yi parce que léeg nga dégg document fi wite ne fii document yoo xamante ni yow doo mën a xam nan la mën a def ba génn fa mu nekkoon tey personne n'est à l'abri mooy leen day faatu wax personne n'est à l'abri bu fekkee suñuy ay données dafay dem ba di génn di dugg ci yeneen i frontière ba ñeneen di am ay possibilité di ko génne loolu c'est dangereux boo xoolee affaire armement yi fi amoon kan moo ko génne journaliste boo xamante ni dëkkul ci réew mi bari na luy xew ci réew mi yoo xamante ni ña nekk bitim réew sax ñooñu ci njëkk a jot ñooñu koy njëkk a génne kon Sénégal dama ne la administration bi jot jot na ñu paramétrer waat ko sécuriser waat ko parce que li ñu def nii aussi wax dëgg yàlla xel mënu ko nangu bulletin médical kooku c'est secret kenn amul droit wu kenn amul sañ-sañu di di di wili pande wérgu wérgu yaramu wérgu yaramu doomu aadama li administration bi def nag loolu parfaitement ñëpp d'accord nañ ci même bu dul Ousmane Sonko ak ku mu mën a doon nga nekk ci kaso yi bu sa wér gu yaram digg doomee wala sooxee loolu war na ci administration pénitentiaire ñu yëgal autorités yi xamal leen pour que ñoom itam ñu mën a jël seen seen responsabilité en tout cas ce qui est sûr et certain mooy am nañ firnde ni Ousmane Sonko mi ngi ci situation bu inquiétante loolu nag c'est à l'État de prendre toutes ses responsabilités donc nag grève de la fin bi ñi ci wax bari nañ xam nga grève de la fin bi question de choix la choix la moom boo xamante ni jël na ko donte nag Sénégal yu bëree bëri cette fois ci ànduñu si ak moom. Mhm. waaye nañu xam ni question de choix la waaye bu ñu sañoon itam mu bàyyi ko. mu bàyyi ko parce que le Sénégal de deme et le Sénégal d'aujourd'hui a besoin d'un leader comme Ousmane Sonko te Ousmane Sonko est une bonne nouvelle pour la démocratie de notre pays. donc lépp lu nga xam ne daf koy affaiblir daf koy affaiblir loolu véritablement bëgguñu ñu mu ci mu ciy soobu. président. <coughs> en tant que nit ah en tant que nit dañuy dañuy vraiment masawu masawu Ousmane Sonko parce que démb man bi ma liiree affaire bi vraiment am naa am naa lu ma metti quoi parce que au moins xam naa xam naa nit bi lu dëgg wax nañu am na lu séq lu ndaw. Hmm. même boo xamul sax ne serait-ce entre nit ak nit ñu nga gis loolu ñu ne la moo dal nit ki ñu ne la ci condition yooyu la nekk je pense que en tant que nit. war nga am war nga am tuuti lu lu naqari sa xol li ci des mooy ñu ñu ñaanal ko mu ñëwaat rétablir waat parce que aussi man ni ma xaw ma ndegam même impression bi ma am ngeen am parce que aussi quand tu relis li koy jot nekk quarante degré saa waay ah. <laughs> nit kuy def quarante degré loolu dafa garaaw di mu yóbbu la ay délire voilà loolu. loolu médicalement ça s'explique sa fièvre am na lu muy monter da ngay. déliré bien da ngay waxtu. donc mu mu nekk situation bu metti bu doy waar boo xam ne vraiment ñun dañu am compassion par rapport à à Ousmane Sonko et à sa famille parce que aussi jàpp naa ne ñoom aussi dañ ko découvrir en même temps que au même moment que nu te tamit peut-être sentiment ñoom bi ñu ciy am sax mooy gën a poussé loolu affaire nit la bu weesoo tamit. il faut que moom it mu bàyyi mu bàyyi mu bàyyi. grève bi grève de la faim bi. parce que fii dara jaru fi aussi nga joxe sa life noonu dara jaru ko moom laa waxoon fii ci Pape Alé bi mu ko doon def da lekk bu baax xam ne loo gis tey peut-être suba dina jeex. waaw nga bañ a yemale rek sa sa vision ci situation tey bi donc moom et moom sax mu warul moom boppam ba moom rek mu bëgg a jël une décision unilatérale ne day def grève de la faim boo xam ne. day exposer sa vie aussi loolu il n'en a le droit parce qu'il a des enfants il a des femmes il a une famille il y des gens qui l'aiment donc ne serait-ce pour ces gens-là moom war na góor góorgóorlu ba vraiment loolu mu bañ a exposer dundam leneen lii c'est la fuite bi am ñëpp dañ koy condamner du yoon administration loolu loolu warul am parce que administration aussi dafa dafa am lu mu tëddee kayit googu warul nekk sur la place publique parce que j'imagine que ñi mu jaar seen loxo bariwul Serigne à raison le procureur il n'a même pas besoin de nous informer il n'a qu'à ouvrir son enquête démb ak tey bu dee ubbi na ko moom war na am sax lu war a mën a ñëwaat wax ñu ko parce que parce que kayit googu mais ci ñi mu seen un cercle fermé su génnee mënul génn cercle boobu man mënuma ci jot yow mënoo ci jot keneen mënu ci jot te loolu tamit dañ ko war a saytu ba xam kan moo génne loolu parce que aussi personne n'a le droit de de divulguer parce que c'est information informations <laughs> loolu information la kenn amul droit. secret médical la ah, secret médical kenn hmm. amul droit divulguer ko. maintenant qui a intérêt à le faire. c'est ça loolu tamit question. Ah. qui a intérêt aujourd'hui d'où l'importance procureur mu autosaisir d'où l'importance oui la saisine la euh, procureur bi autosaisir procureur qui s'est ñu ngi koy xaar qu'il nous donne aussi. beaucoup plus d'éléments. les conclusions de son enquête. Ouais. parce qu'on a parce que finalement aussi munoo xam kan sur quelle base ak ki ko génne lan moo tax mu génne ko. Mhm. loolu tamit c'est des interrogations mun na wax tantôt comme ay nitu Ousmane Sonko la peut-être pour war nit ñi ne il est réellement dans en danger. Mhm. mais mën na nekk tamit de l'autre côté. oui oui parce aussi mun na ko génne ah. c'est pas. donc c'est à lui d'éclairer les gens. Mhm. très leneen leneen leneen leneen liñ ci liñ ci liñ ci mën a mën a waxaat. waaw. mooy aussi je pense que il faut que ñu ñu dépasser situation yi quoi.